Moussa Macky Sall nee na li nga nekk Touba xam na ko ndaxte Touba dafa nekk béréb boo xam ne nii bis bu yàlla sàkk mu di fi yónnee di fi yónnee ay directeurs généraux di fi yónnee ay ministres ndax Touba moo laaj ab dayoom moo toll noonu Macky Sall nee na yëg na ci renseignements généraux yi ne gan gu mu fi yebal Touba yaa koy teeru yaa koy teral yaa koy jox mu lekk yaa koy terte kon président nee na war na fee yónnee ngir jëmm jooju Moussa loolu lépp moo tax léegi la ca des mooy lenn président nee na kon tey bu ñu jëlee bis bii léegi di bisu sëñ ab laat Mbacké te mu yor réew mi yor Sénégal te dara ñoru ko ndax gis ngeen li fi nekkee l'islam rek moo ko ñor nee na mi ngi lay gërëm di la sant di la fedd li kóllëre di la masaw sa coono di la gërëm di la sant parce que yendaloo guddi yendaloo bëccëg Macky Sall nee a jërëjëf mi ngi lay gërëm ndax ndaw day su nekkee ci yoonu dara ñoru ko lu dul Serigne Touba ndaw loola xel yu bari mën naa dal ci moom kon Moussa yal na la yàlla guddal saw fan monsieur le ministre nag itteem mooy lépp loo xam ne mi ngi dox ci région bi muy diine muy leneen ya garab mooy mu teew fa yëkkati fa kàddu ngir président way yëkëti fa kaddu ngir yoon wi way yëkëti fa kaddu ngir askanu région de jurbel loolu it yàlla tombanteeg nag ñu jël dom joju jox ko région de Diourbel jël ko ministère bi jox ko muy ministre dam job kon yalla warna warna ñoo xalaat ne lu bari bari bari xel yu bari warna ñoo dal ka né président de la république vision di sante Moussa bu baax. ci li nga xamanteni bi yow ak mbollem wa Toubabel gep def. ngeen xam ne ñun ngeen ko defal moo tax foog naa ne ñëpp sawar nañ ci ñëw ànd ko ak yow loolu léegi itam li ñu wax léegi am na ci loo xam ne sa jikkoy bopp la sa jëmmi bopp la ndax sa taxawaay bu rafet man ci wàllu politique bi laa la ne te damay def kuy faral di seetlu waaye gis naa ne. ce engagement ëmb dara loo xamante ne bii man man sa ko cee mat gis naa ne amoo ci benn caaxaan fii tam lu wér la lu dëggu ci yow la te loolu nag nekk loo xam ne yom jamono ji gi nekk la waxtu bu nekk da ñëw kër ga ñuy waxtaan bu heure bu nekk waaye heure bu waxee rek la ma cee déggee moo di kii di président Macky Sall yëmale ko ak dara ci jaral na mu nekk bis bi nag li tax ñu koy def sant Sëñ Blaat lañ wax Sëñ Blaat nag ñin dañoo defal lañu jomb ndax dañoo jële woon ci dëkk bu sori indi ñi fii te bu ñu bàyyi foofu kat jàpp na ñin euh, fii ñu isi dañu fi isi sëñ Cheikh Adda bii ne tax ma tuddee bis bi ñaari mbir la sëtu Sëñ Tuubaa la boo xam te nii kenn nëttabliwul ni sëtu Sëñ Tuubaa la di liggéeyal nag président Macky Sall mi xam ne moom moom rek laa gëm ci politique gëmuma keneen mu def ko noo xam ne kenn defu ko ko kon donc man bu amé bis bu may sant eh, ma mu signé blat ñi tuddu ko signé blat man mom la kay prêté tay ji ki na tew na fi di di di di sant Sëñ Murtada am Sëñ Fall mo fi ñëk ñew di sant sëñ sëñ eh, sëñ am sa mom Sëñ blat ñew na fi ak Sëñ Murtada ñew na fi ak sët Sëñ blat yi bare bare bare Mara Diop ma ngi lay yóbbante sant ci dam Diop mis dam Diop sama xarit la rek la ma woo téléphone ma Moussa de bëgg na ma ñew ndax yow sama wëlëre nga sama xarit gis na ni ngi may taxawoo Euh, di remercier itam ministre yëpp nag ci nag di ci njëkkee nag Matar Cissé yabal na fi délégation ak jëf ju mat sëkk di euh, remercier Amor Youm moom tam yabal na fi délégation ak jëf ju mat sëkk Samba Ndiobène Ka maa ngi koy remercier moom tam taxawaayam ci man ñëpp xam nañ di sant bu baax a baax na Matar Ba mii xëy moo fi doog a yónnee délégation bi di doog a si noonu moom tam Matar Ba numéro 2 li may woowee fépp Fatick ak foo dem dinaa may da ngaa nuru ak Matar Ba mu jàpp ma lool di nuyu nag koo xam te nag moom euh, soxna Bari Mbacke moom suñu Mountakha moom tam bis bi moom mooy uti dana bi jëf ji jëf ji jëf na ci jëf ju mat sëkk soxna Faat Siid nag moom moom lay mujjee ndax moom tam euh, mooy marraine bi waaye tam moom tam jëf jëm ci def maam euh, kaw na sama njort dëgg yàlla da bu ma nee nga léegi léegi ay añ añi ma ko yëdërëm du ñu ko yóbbu añi ma ne ko añi foog mu dem di sant nag maam Sey Mbàkke mi nga xam ne moom ñoo bokk bis bi moom mi ngi Touba Belel monsieur le maire bis bi bi mu ñëwee damaa boobu ma ñëw mu ne ma Moussa la wax du ma la da nga naan dem defar saw këyit xool lu commencé ci baasi ba ci añ reer yi nga ma nangam moo koy def ma ñëw mu bind ab sec jox jënd ab sag jox ba pare nag booraat yónnee waat fi aw nag woo xam te ni nag boobu moom ah, ba léegi mi ngi ci biir jeexagul kon kooku moom danaa ko sant sant goo xam ne moom ñëpp dañuy xam ni sant na ko. soxna itam maa ngi leen sant madame Thioune maa ngi sant Mariétou Fall maa ngi sant bu baax di sant euh, Maguette Bassal moom itam jàmbaar na ndax fii mu nekk ci belal sori na te léeg dina toog ay weer du ma teg bët du ma gis. tudd ko jàmbat kon moom maa ngi sant bu baax di ko gërëm maram Thioune nag moom tey tam indi na fi teraanga yooyu mbuusi xong yi ngeen gis moo fi indi teraanga yi baree baree bari la fi indi tey jii moom ak ànd ak ab euh, njabootam ànd ak ay xaritam waa hôpital Matlaboul Fawzeyni ñu ngi fi ñëw taaral bis bi kon boog maa ngi sant di la gërëm